إلى الكتاب والحديث انصرفت قلبي وقالبي بالوجه المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفت قلبي وقالبي بالوجه المصطفى إلى الكتاب والحديث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 fukki fan ak ben ci wéru août waye tam muy dëppoog ben fan wala ñaari fan ci wéru muharram ci benuk at mu yes mi ñi sentu di 1443 amadou mo ndaxam bakke jox talibé yépp ndigal ngir ñu dundal bis bobu ci njangum xasida mu yaatu mo xamni ne mbokk taalibe yëpp ñoo bok bokk te nak ak li jëm ci li tax mu matale charte ci bép fan xam ngeen ni taxaway yépp matalé matale na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 war ci am sa taxawaayu bopp mat seuk lepp lu jëm ci masque yo xamni ya ko wara fagul sa bop gel yi nga xamni mo lañ war raxasu yi nga xamni lepp day tax ndigal li gëna matalé matale samonté ak loolu ñi nga xamni ñoy saytu mbolo mi képp ku masque kam dendal naka soñi soññi képp zel gel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 tew ci bis bi nga xamni moy bis xasida boo xam ne dafa bëgg mu doon bis bu réeréeri boo xam ne fu ay xaj ci dëkk bi nekk fa li dalé ci suba gi 7 h ba takusan di jang xassida ci durus ak diko yëkëti ñu ñaan suñu borom mu yëgal ci bis ba ak jamm ñu defee ko ni ko sëriñ bi bëggee waye tam lepp luñ ci ciy mu defal ñu lu kay suñu jort alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.